Euh, de confier cette sécurité la à, à des Sénégalais, pour ne pas dire à des éléments mmh. sénégalais ndakaar Dakar Sénégal. Vraiment alors Thioune euh, dañuy ñëw ci conseil euh, interministériel bi naka tey jii Ousmane Sonko daal di fixé li nga xam ne nag moo di njëgum gerte gi. Euh, bi muy ñëw mi ngi ko euh, fekk ci deux cent quatre vingt euh, francs CFA mu daal ñëw yokk ko ba trois cent cinq maanaam une augmentation de neuf pour cent jamono yooyu la si ginnaaw gisoon nañu aussi arrêté bi nga xam ne ministre de l' agriculture jëloon na ko di ñu xamal ni mbirum gerte gi moom kenn du ko daal di te fii ci biir réew bi nañu koy daal di bàyyi jaay ko usines yi nga xam ni ñoom ñoo nekk fii di ko transformé nan nga jàngatee prix bi nga xam ni jàpp nañ ko fixé nañ ko ci ci ci gerte bi xam ne moo di euh, trois cent cinq francs CFA. Euh, am na solo trop trop trop trop trop trop trop parce que li sax mu am solo. Uh-huh. dafa am daje bu jiitu lii mooy kuréel bi nga xamante ni moom mooy discuter euh, nan lañuy fexe ba baykat yi ñuy jaayee ñu jëndee seen gerte lu jaadu. Uh-huh. ñoom dañoo waxoon bu ñu sañoon ñu jëndee ko deux cent. deux cent quatre-vingt-dix. ñoom loolu la ñu waxoon ne bu ñu sañoon. bu ñu sañoo ñu jëndee ko loolu. Mhm. te loolu neexoon na baykat yi lool parce que euh, jamono yee passé mhm. mooy at bi passé du jegewul woon jegewu ko woon. 280 mhm. la woon 280 ñu teg ci 10 francs alors lu ñu waxtaanee ñoom lu ñu bëgg ba pare. loolu nekk lu arrangé baykat yi état ne d'accord léegi 90 ngeen bëgg. léegi ñun dañ ciy yokk sax léegi 305 la wala noonu. 305 donc am na solo. donc l'augmentation et de vingt cinq pour cent maanaam yokkal nañ leen vingt cinq pour cent vingt cinq francs ci chaque kilo. Mm-hmm. loolu donte booy xool coono baykat bi kilo gerte war na mun jar sax cinq cent war na mun jar. 800 600. waaw parce que Ousmane Sonko ci biir kàddoom aussi mi ngi koy expliqué naan fii ak ay fan. wala fii ak ay at. Euh, njëg bi mën na àgg 500 francs effectivement et loolu dafa am solo parce que baykat bi laata muy am gerte bu koy jaay. dafa am dafa sonn dafay toog ay weer nekk ci tool bi tool boobu nu ne dina ci daj dina ci daj lu nekk balaa muy sotti ba am gerte ba koy jaay prix boobu day métti kon da gis ne boo tenir compte coono bu mu ciy daj maanaam bu dee ci wàllum calcul da ciy da ciy financé benn dina ciy def dooleem. dina ci def alalam parce que lu ndaw ndaw dina jënd àll dina jënd engrais engrais yi mayuñ ko ko est-ce que am na moyen waaye day góorgóorlu ut engrais mun ko def ci tool bi pour récolte pour récolte jot mun a am lu muy jaayee tey. Mm-hmm. loolu boo koy jaayee na nga koy jaayee prix boo xamante ni même bu fekkente ni amul ci loo xam ne da koy dundal ba un an. Mm-hmm. waaye mu am ci loo xamante ni lu muy téye la. lu muy téye et loolu baax na mooy nga yokk lu ñu tuddee njëgu gerte bi. Mm-hmm. maintenant loolu am na solo maintenant. euh, c'est bien déjà parce que Sénégal dafa am un projet de souveraineté agricole. Mmh. alors nga bëgg li ñuy bàyyee mu doon luy assumer luy assurer la souveraineté alimentaire. Mhm. mooy fexe ba lu ñuy bàyyee muy dundal askanu Sénégal waaye Sénégal yi dundee lu ñuy bàyyee ci réew mi loolu na du wax. Mhm. jëf la. bay dundee waaw bay dundee rafet na lool mangeons ce que nous consommons consommons ce que nous nous, nous, nous loolu mën na nekk c'est très bien joli c'est un beau slogan mm-hmm. mais ça c'est il y a des actes qui font d'accord exister loolu mooy jamono ji nous avons une agriculture de subsistance mm-hmm. bay dundee pas bay pour dundal mm-hmm. bay dundee la ñu am jamono ji loolu day deñ donc il faut une agriculture industrielle uh ou bien il faut industrialiser l'agriculture tant que on ne l'industrialise pas uh -huh. on sera justement au stade d'agriculteur yoo xamante ni dañuy bay pour dundal seen bopp donc koo xamante da ngay bay mënoo dundal sa bopp yow sa kër sa bay li ngay bay mënul assurer sa souveraineté alimentaire mënoo assurer souveraineté alimentaire dëkk wala village wala koñ de mhm. donc loolu il faudrait ñu régler ces questions la que ces cultivateurs ne soient plus des paysans mais qu'ils soit des agriculteurs mhm. ñu jóge statut paysan ñu dem ci statut agriculteurs et gros cultivateur mhm. ñu am les moyens qu'il faut financier les moyens logistiques les équipements Euh, yi nga xamante ne moom mooy am pour bay ñu mën ko am et comme su boobaa quelle que soit l'ambition boo fixée mhm. horizon tel x y z dinañ ko mën a atteindre loolu vraiment li nga xamante ni lu am solo la mais beneen bi aussi y a une mesure boo xamante ni mooy bi ñu wax ne dañuy interdire mhm. exportation gerte gerte mhm. dafa am solo parce que boo teree mu génn ci biti mooy doon day des ci réew mi donc boo teree mu boo nangoo mu des ci réew mi huiliers yi ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy soxla gerte pour def beneen transformation. Mhm. ñoom dañuy am lu ñuy tuddee la disponibilité du produit mooy su boobaa boo ko soxlaa mu ngi ci Sénégal mais boo ko terewul ñu génnee ko réew mi waaye borom doole ñoo koy génnee jaay ko yeneen réew comme chinois li ñuy def. Mhm. dañuy jënd lu bari yóbbu ko Chine transporter ko indiwaat ko jaayaat ko Sénégalais yi et pourtant Sénégalais yooyu nekk fi am na si ñoo xamante bu ñu leen doolelee gerte gi dañ koy jëndee fii. Mhm. baykat bi am ci prix wu normal huilier bi am ci prix dem defar ko jaay ko sénégalais bu ko neexee exporté ko mais boo ko bàyyee ñu exporté ko dañ koy yi biti réew ñëw jaayaat la ko. Hmm. jaayaat ko say doom jaayaat ko même say même baykat. et loolu je dis bien moo tax cette mesure du arrêté du ministre Mabouba Diagne c'est un bon arrêté parce que dafay aller dans le sens d'une sécurisation mais aussi dans le sens fexe ba ah. lu ñu am la disponibilité du produit mun am moo xamante ni boo ko soxlaa gis ko ah. comme ça les huiliers aussi ñoom ñu am lu ñu tuddee une primeur ah. de mën a transformer ces produits la au détriment euh, justement de de ceux-là qui sont de l'international mais mais mais après après euh, Euh, nu ñu fixé nga xam nag moo di njëgum gerte gi est-ce que tey jii bu ndem àgg ci transformation bi du xaw metti ci euh, côté sénégalais yi. comme mooy. Euh, comme bu ñu ko jëlee transformé ko def ko huile ak yenn matière est-ce que du xaw metti ci côté. sénégalais non xam nga dafa am un arrangement. cest à nag il faut ñu xam huilier bi nag fii ak baykat bi moom lu muy gagné. Mhm. moo ëpp gerte baykat bi lu muy gagné c'est-à-dire léegi baykat bi par exemple moom mënul taxaw ne sama kilo gerte nañ ko jaayee nañ jëndee 1000 francs mhm. day arbitré mais xam na ne mënuñ jëndee jamono ji kilo gerte 1000 francs mhm. soo ko jaayee mille francs ki koy jënd su ko naree jënd mhm. transformé ko ba mu am produit fini produit fini boobu noonu mu nekk diwlin du huile mhm. mais bu la ko naree jaayee ba bu naree génnee 1000 francs yooyu bi am ci bénéfice su boobaa boo méttul dina jaay litre diwlin bi ay 1500 de donc su boobaa day métti moo tax donc dafa am loo xamante ne c'est raisonnable mooy que euh, les kilos d'arachide mm -hmm. d'accord au début parce que man gis naa fi kilo d'arachide doon jar cent cinquante ans mhm. ay deux cent mhm. d'accord tey ñu ne la trois cent cinq donc gëm naa ne certainement mun na dem ba cinq cent mhm. ça c'est c'est c'est c'est c'est une ambition mm très vraiment euh, audacieuse boo xamante ni euh, lu mën a nekk la léegi nag euh, tey baykat bi mënul exiger un prix de mille francs alors que ki nga xamante moom nga koy jaay moom dafa lu ci jublu li mu jublu mooy da soppi bu ko soppee gerte mu doon mu doon huile. Uh-huh. huile boobu yow béykat bi da nga koy soxla est-ce que boo ko jaayee mille francs su la nar a jaayatee litre diwlin bi est-ce que di nga ko mën a jënd. parce que uh-huh. day fekk mu cher. parce que y le prix de la transformation. Uh-huh. et le prix de la vente. et su le prix de la vente si euh, l'achat était cher. le prix de le prix de vente ne peut pas être vraiment moins cher. dafay wàcc. donc xanaa kon léegi mbaxalu Saloum commencé commencé wàcc. waaw déwén léegi mun suñu mbokk Saloum Saloum waaw ñuy defar loolu il faut ñu wàññi loolu aussi mbaxalu bi. dafa bu bu may àgg di ko réclamer. Ah, koñ ba cest fii amatul léegi ah gerte léegi dafa cher ah, gerte amul chinois yóbbu nañ ko. man bu may àgg di ko di ko di ko réclamer. bu fi bu fi benn suñu yaay booy wax ne. chinois <laughs> yi jël nañ gerte gi yóbbu. yóbbuñ ko. jamono ji gerte gi mu ngi ci Sénégal fii. loolu kay sax sa xol na sedd. ah bu may àgg di ko réclamer ki may ki may jaay mbaxalu Saloum. Ah. ah waaw jeex ne ko nag mu mu mu mu mu mu kii mu wàññeeku prix bi aussi. Uh-huh. parce que waxuñu diwlin kese boobu de. Uh-huh. ko même même buy jaay maanaam plat bi ñaata doon jar am na plat yi 1000 francs. waaw am na 1000 francs 700. ah il faut ñu wàññi ah, ñu wàññi ko. waaw foog ñu wàññi ko def ko ah. def ko def ko 500 ah. wala wala bu mu naan wàcc encore. ah déet ñoom tamit dañoo dañuy fay location bi. ah, ah et fay nañuy am employé 600 rek baax na 500 daan daw. Uh-huh. ah gerte Saalum yow mi xam nga wata Saalum. oui Ousmane Sarr nee na nee nee na bu la mayee soxna euh, euh, xawma nan ngay def euh, kër ga. cest à si sinon dina la may. jabaru ah. séeréer. su ma amee jabar lu may def kër ga may lay <laughs> loo bëgg xam.